واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسن وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مبوك جوليس ام بجامع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا بو سنت يالا دولي سنت يالا بو با دي سنت يالا مي نيو مايات مي نيو فيكي بين ديال سوات دي فوتاني فجر Juga alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah daiman abada alhamdulillah kasir alhamdulillah ala kulli halin. Moy ñu ngi sante yalla sante bu amut apa amudai wa di julli ci yene debi sallallahu alayhi wa sallam. Ak wa kiram ak sahaba mi ak kep ko am yaangi tepp sunna bi yowmal qiyamah. Ya yalla yalla boole ci ya ñu yalla ñi jama endo ko fanano ko ya yalla mi jamal yalla defal jama ko ci yu ko tan ñi febar nek ci kër nek ci lopitaan bi. Boy nek ci febar yalla yalla safar yalla yalla delu sa sa yalla yalla may wër yalla su lan wër afiya yalla may ñu afiya. waaye jullit yi jiitu àllaaxira yàlla yërëm leen xarale aljana yàlla yaatal seen baameel yàlla defal seen baameel mu nekk rawdatu min riyaadil janna waaye ndaw yi yàlla sàmm leen aar leen warsaga leen xam-xam warsaga leen liggéey warsaga leen àndandoo bu baax jigéen yàlla sàmm leen aar leen yàlla boole ñu xéewale àdduna defal ñu xéewale àdduna xéewale àllaaxira mucc leen safara amin ya rabbal alamin mbokk yi duñaa fi si daaray muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jàngalekat ma boobu bi léegi ñu continuer suñu waxtaan bi al muminuuna wal muminaati baaduhum awliyaa baad yaakaar naa foofu lañ emoon vidéo bi dog waaw comme ne yàlla subhanahu wa taala dafa boole jullit yu góor yi ak yu jigéen yi waaw ku nekk si ñun war a am responsabilité bu rëy si sa moroom saay boo ko gisee si si loo xam ne naka si du noonu rek yàlla subhanahu wa taala mu ne ax kañ taxawal ko waxal ko waxtaanal moom si njëkk ak teraanga waaw naka si li nga xam ne jullit yu baax yu góor yi ak jigéen yi loolu la ñoo نافخه تبي نافخه تبي نافخة نيجي نافخة دي نافخة غيس نافخه نيومي نافخة واو نافخة نين نافخة نون نافخة واو نافخة خامي دي نافخة دي نافخة لو نافخة نيكو نافخة خامي نافخة لا نافخة واي نافخة جيكو نافخة نيومي نافخة نين نافخة اندسيس نافخة بون نافخة سبحانه نافخة بوم نافخة من mutawaaduuna walaw ibtaad ibtaadat manaziluhum waaw yéen bi salaa sallam mu ne julliti góor yi ak yu jigéen yi ndenkaane ndenkaan ndenkaane mu war a nekk seen diggante advice bi moo ne war a nekk seen diggante ku nekk si ñaar ñi ku nekk mun naa diggal sa morom bu baax soo ko gisee si lu baax nga ne ko ah kañ nga ko ndax si góorgóorlu soo ko gisee si naka si dunoo tamit nga ne déedéet diw lii du nekkul lu baax lii du li nga xam ne moom la yàlla santaane lii nekkul lu yàlla gërëm mu ne naka noonu tamit mu ne xataa sax su fekkee ne sax du sa dëkkandoor di ngeen soriwante dëkkuwaay waaye terewut ne boo gisee si moom loo xam ne naka si dunoon rek eh, waxtaana la moom si njëkk ak teraanga won ko lii nga nekka du dëgga du yoon si loo xam ne du indi fitna mu ne nag su fekkee ne jullit yi noonu lañ war a mel من النبيد واي منافقون بعضهم لبعض غشاشة متحا سدونا ولو اقتربت منازلهم واو كزنا في خي نحمل يوم لوسين مبير موي جحاسرك واو جحاسرك واي تميت أنيان موي فسين خول بيغا خامن نيوم ايفين سا سين كي ديك واي مون مون مون نيو نيك سا ديكاندور واي دون لا انيل جامم bugg bugg ñoo gis jàmm si yow mukk luñ xam si yow rek yóbbu nañ ko si waxee ko foo xamee ne sax yow doo yaakaar ne lii dafa eggi te suñ ñëwee sa kanam mu wane ne ah ñoom ñooy sa dëkkandoor dañ la soppa dañ la bugga waaye fekka loolu amut yonent bi salaa sallam mu ñu ko wax si hadis loolu tax mu ne ya amuruna bil maaruf wa yanhawna anil munkar walakin maana hadihi al aaya yàlla subhaana taala mu ne nag jullit yu góori ak yu jigéen yi nga xam ne seen jëf seen liggéey mooy lan ya'muruna bil ma'ruf waaw mu nekk suñ warugar ñu ñëpp suñ juuti pour lan ñuy digle lu baax wa yanhawna anil kar ñuy tere lu bon lu bon nag mooy li nga xam ne bugguloo nit fekk la ci xam ne loolu nekkul lu baax looy def di ko nëbbu setara sa boppa waaw ndax soo nekk si jaamu yàlla doo si rus doo si ragal kenn fekk la ci moo tax ne nag jullit yu góor ak yu jigéen yi seen jëflante mooy lan ñuy digle lu baax di tere li nga xam ne mooy safaan waaye nag yàlla mu ne wa yuqiimuna salaat gis nga julli loo yàlla ne inna salaata tanha anil fahshaai gis nga loo tax julli julli mooy boppi diine mooy boppi islaam ku saagane julli rek yaa ngi saagane diine ku bàyyi julli yaa ngi maaba diine loo tax nag yàlla subhaanahu wa mu ne wa yuqiimuna salaat ndig julli bu wér julli boo xam ne dafa wér nit ki julee mu toroxlu ragal yàlla def ko ni mu waree julli boobu daf lay tere lépp loo xam ne lu ñaawteef la loo xam ne lu bon la julli bi def la koy tere nga def ko ndik lan sa julli bi mu ngi wér wota yàlla jiital julli wa yutuna zakat waaw gannaaw julli yàlla mun a jax zakat zakat mu am solo lool si société waaw génne asaka ñu bari nag dañ dee jaawale sarax ak asaka bes bu nekk nga sare nga ne man de ma day joxe asaka déedéet asaka alal la boo xam ne dafa am waxtu buñ ko war a joxee ba pare dafa war a mot li ñoo ee nisaab su waxtu ba jotee ñu ne yàlla subhaana wa taala limal ñu juróom-ñetti nit ñoo xam ne ñoom lañ ko war a jox wala juróom-ñetti asnaaf benn groupe boo xam ne moom la yàlla wax ne moom ñoom lañ ko war a jox bon zakat dafa am lu moo def ci société dafay tax nit ñi buggante dafay tax yow mi am miskin bi baadoole bi nga jox sa zakat wallahi kooku du la musa añaanati fu mu la fu mu mun a nekk rek mu ngi lay ñaanal te mu lay yéene lu baax waaye nga am ko bañ ko koo jox lu mu lay mooy lu bon añaan dal di ñëw du saa la dal si lu loo xam ne safaan la rek def see kontaan ne ñaw lu mu foogoon dafa foogoon ne lii nangam nangam nangam nangam waaye su fekkee ne la nga xam ne axam la muy li nga war a génne asaka nga jox ko ko kooku macha allah bu gisoon lu bon bu ñëw sa kër na taxawu pour dimbali la dig na xam ne yow ku koy jàppale waaye soo ko defut mun naa gis lu bon di ñëw di la lor wala lor sa njaboot mu dem yoonam mais du ma ko ma ko si dimbale parce que mu ngi am bañ maa dimbale loo tax yàlla subhaana taala saa bu mu waxee julli rek wa aqimu salaata wa atu zakat taxawal leen julli joxe leen asaka asaka dafa baax si société mbokk julliti mu ne jullit yu baax yi si lu baax di terewante lu bon di taxawal julli waaye tamit du joxe asaka waaw waaye wa yutiuna allaha wa rasula ah dañu nekk si alquran sunna wa yutiuna allaha parce que ni kii di nga gis mu ngi julli mu ngi joxe asaka waaye mu si ay bidaa topput li yàlla santaane mu si ay bidaa yoo xam ne subhanallah yoo xam ne daf koy réeral te ndeysaan kenn daaxu ko julli te mu ngi joxe asaka moo tax yàlla subhanahu wa taala mu ne wa yutiuna wa rasula parce que yàlla moo la digal julli axaka ah nga yàlla moo la digal asaka axaka ah ne toppa toppa yonente bi salaa mooy ne nga moytandiku bidaa ndi bidaa boo gis rek mu nga yóbbu boromam si réer te réer fu mu yóbbu boromam safara kullu bidaatin dalala wa kullu dalalatin fi naar waaw yàlla muy moom la wàccee si yonente bi alayhi salaatu salaam ak ban sunnam bi mom sallallahu Alaihi Wasallam. mi nga xamene ne loolu la wax taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum lan tadilu min ba'di kitabullah wa sunnati dik bayna le leen ñaari mbir boo leen si jàppee loolu mo sa reer mok suma gannaaw muy alquran ak sunna te ne wa yutiuna allah wa rasula ulaika sa yarhamuhumullah waaw lii natiija bi manam fay bi moy lan manam julit nga xam ñu ngi diglante lu baax sen bir di tere lu bon di taxawal julli juróom di koy julli si waxtoom joxe asaka suñ ko amee toppa yàlla si li yàlla santaan ak yonent bi salaa sallam mu ka ulaayika sayarhamullah fee bi moo leen mu ne ñooñu nga xam ne ñoo tegu si yoon boobu yàlla na leen yërëm waaw muy lu garanti lu garanti amul naxaate lii dafa garanti mooy ne ku tegu si lii rek yàlla subhanahu wa taala mu ne axakañ yow yërmaande bi nga xam ne moom la ñëpp di ut moom la ñëpp di ñaan yàlla mu ne axakañ yow naa la dugal suma yërmaande boobu inna allaha azizun hakim yàlla ku màggala waaye yàlla subhanahu wa taala ku jubla si aateem waaye yàlla subhanahu wa taala ku lewet la ku bari yërmaande si jaamam bi pour gis nag lii boo si tegoo rek société bi dafay baax muy société boo xam ne la lanay see njëriñ mooy digle lu baax tere lu bon waaw parce que saay buñ bàyyi lu bon ne man de bokkuma ci bokkuma ci xakkañ ah fa moo law ba egsi si yow doo ko xam sa njabootam parce que keneen ak keneen keneen waaye boo ko teree ayee ko waaye di digle lu baax bi nga xam ne ñëpp gis nañ ne lii mooy lu baax lii mooy li nga xam ne mooy jub lii mooy siraatul mustaqim ñëpp tegu si ban société mooy gën société boobu benn société du ko gën waaye société boo xam ne cahan mo gina bari fof yubbona bari wanak lu baax du fa mun a feeñati dafa mel ni feebar rek commencé di am jàngoro ñu ne la jàngoro bi teel koo faj nga ne ah naa xaar naa xaar ba jàngoro bi law sa biir yaram bi dinan xaree faj de dinan xaree faj noonu la nag jëf ju baax ak jëf ju bon mel jëf ju bon saay buñ ko sagane saagane si society bi rek fa moo mujjee kenn du ko xam loo tax mu ne nag ku ku tegu si lii waaye nag emu si loolu taxawal julli juróom or weer joxe asaka lii mu ne nag yërmande yàlla dina nekk sa kaw kon yàlla ñu yàlla yërëm fa ida kaana axuuka mumin lahu xaqun aleyk an tansaahu lahu xaqun aleyka an turshidahu lahu xaqun aleyka an taaxuza bi yadihi fa haada sharikuka xayaatu su fekkee ne nag lii nga xam ne yàlla mu ngi la ko dénka ne ko yow sa mbokk sa xarit sa dëkkandoor yow am nga àq si moom pour war koo teg si yoonu siraatul mustaqim waaye naka sa njaboot nag naka sa njaboot tamit bi nga xam ne ñu ngi sa roon bon incha allahu si darsa qadim bi darsa bi ñëw nañ ko jékkal yi di ñaan yàlla defal ñu jàmm yàlla subhanahu wa taala wàcc yërmaana suñ kaw yàlla ñu yàlla yërëm si kaw suuf yàlla yërëm ñu si biir suuf waaye yàlla yërëm ñu bés bi nga xam ne nañ daje moom allahuma rabbana atina fi dunia hasana wa fi alaxirati hasana wa qina azab annar wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa axiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin